sëriñ abdullahi mbàkke sëriñ abdullahi mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1907 ci dëkk boobu di ca yéen jolof di doomu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ak ku ñuy wax soxna faatumatu alkubra soxna faatumatu alkubra mi naaru gànnaar la bu sëriñ tuuba seexul xaddiim jële woon gànnaar soxna faatumatu alkubra mi ti moo meññ ki di sëriñ abdullahi mbàkke sëriñ abdullahi mbàkke nag feeñ jamono ci atum 1907 ci weer wi di weeru septembre ci weeru olofa nag mooy weeruñ tudde weeru baraxlu jotaay bi nag mooy atum 1325 Serigne Touba Seexul Xaddim ci mois de juin ci atum 1907 lañ ko jëlee foofu nag ci gànnaar indi ko nag ci Ceyeen Jolof ci mois de juin boobu la def Ceyeen jolo juillet août septembre kii di Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi nag feeñ jamono mu feeñe jamono nag Ceyeen Jolof di ñetteelu résidence surveillée bu waajuram Xaadim Rasuul Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi nag amul kenn nag ku bokkal waajur wu jigéen di soxna Faatu Mato al Kubra mi benn doom la ci soxna Faatu Mato al Kubra Touba ak ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim bi mu matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ ndaam Abdourahman Lo ci ndaam daaru xalimul xabiir ci loxoy sëriñ ndaam Abdourahman Lo la jànge alxuraanul karim waaye nag ci njaareem la bind nag lii di kaamilam ci teewaayu ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim muy waajuram ginnaaw njaareem nag la ko ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim jébbal rakkam ja maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke mbàkke ndaamal daaru ngir mu jàngal ko xam-xam ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag la nekk ba am nag lii di xam-xam mu jóge waat nag ci waajuram maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru delsi waat nag ci loxoy waajuram xaadim rasuul ci njaareem sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi nekkoon na ku sës rëkk nag ci ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadim waaye booba itam tuut tànk la bokkoon na ci doomu sëriñ Tubaa Seexul Xadim yu gënoon a nuru seen waajur wa Xaadim Rasuul ba tax na itam mag ñi nekkoon nag ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadim ci njaareem kii di sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi laataa ñuy xàmmee ba xam sëriñ tuubaa la waaw wala déet sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi da leen romb ba noppi buñ déggee kàddug sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itim laataa ñuy xam ba xam ku baax ki sëriñ tuubaa la waa wala déet itim sëriñ abdullahi borom dër bi dafa waxaat ak ñoom loolu itim taxoon na mag ñi joxoon ko cër bu baax a baax itim loolu itim taxoon na ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim nanguwul woon sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi sori ko ndax kat ñoom ñaar kiif kiif ndax nuróoguñu nuróo woon ci lépp loola itam taxoon na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim daa sàmm bu baax a baax ki di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ba tax na dawul nangu mu di ko sori dawul nangu itam muy génn ndax yéemu gu mag ñi daa yéemu ci kooku di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër ndax ni nuroog waajuram xaadim rasuul ba kenn mun leen a xàmmee ngir firndeel ne rek ku nur woon waajuram xaadim rasuul la ba mag ñi itam seede woon nañ ko ndax soo demee ci wolofal gi sëriñ Musaa Ka bind tudde ko xarnu bi ci bi muy tudd mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi muy tudd kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ca jikko ja ak melokaan wa ak nurugum nuru woon xaadim rasuul moo xam ci taxawaay moo xam ci waxiin moo xam ci doxiin ci gàttal daal soo masaa gis seexul xaadim gis sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi mënoo leen a xàmmee ci tolluwaay ci lépp moo tax bi seex musaa ka di tudd mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim ci xarnu bi ba muy tudd sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi noonee mu nuroo woon a ku baax ki tubaa seexul xaadim la indi comme seede ba tax na sax boo dégloo wayi bu baax a baax Moussa Ka ma ngay wax ne bambam xarnu bi daal moo del si waat ci sëriñ Abdullahi boroom dër bi wala sëriñ Abdullahi boroom dër bi moo del si waat ci bambam xarnu bi kon daal kenn lañ woon ñu teewlu li Cheikh Moussa Ka seede ci sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi te wolofal gi mu bind tudde woon ko xarnu bi te bi muy tudd mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim melokaan waa taar ba ak nuróogu sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi nuroo woon ak waajuram la ko seedeel moom doomu Seexul Xaddiim boobu ñu teewlu ko def kana baay mukk benn taxawaay ab doori bamba xarnu bi boo gisee muy samandaay seex bamba ñoo nuroo jataay nuroo yaram nuroo sewaay nuroo deej ci xarnu bi nuroo doxiin niroo waxiin niroo jëm ak meloog doxiin buy ree nga waa nene keleen bàmbaa ñaat ci xarnu bi moo di walax njaanu jinaan bu yen ka xool nag ba ci kañaan kañaan ni tee béygën a daam bàyyi ma leel xarnu bi moo doon tabgawan ca moom moo doon njàmbaar gi ci moom seen baay seddale ji koom seddi koli ji xarnu bi maa gën baaraw na ndey gaaw a soppee biram mbir ma ca baaye may mbiram mu yor jaloore xarnu bi yàlla nañ ko dolli ay murit te yàlla na raw pexe marit te yàlla mu judi farit ba tolle gaay way yooyu la cheikh Moussa Ka seede ci sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi loolu itam day firndeel na sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ku nuroo woon ak juróom xaadim rasul la ndax kat bi cheikh Moussa di waaye nag lii di xarnu bi ci mbooleem doomu seexul xaadimi kenn ku ne bi mu lay tudd ci sa jikko ak sa melokaan moom nuroogum nuroo woon ak waajuram di wax na yàlla buur bi tabaaraka wa taala moo indiwaat xaadim rasul ci jëmm ji di sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi cheikh Moussa Ka na la yàlla fay ci leeral nga leeralal kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër gi ak num nuuroo woon a xaadim rasuul sëriñ abdullahi boroom dër bi itam yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem mu wéy nag nekk nag ci loxoy waajuram xaadim rasuul ci dëkk boobu di njaareem ba ni waajuram génnee àdduna ci le 19 juillet 1927 sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nag doog a jóge njaareem ñëw nag jébbal léppam nag magam cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nag bi mu ñëwee tuubaa te wetu magam tuubaa daarul minnam fa la dëkkee fi dëkkoon ci daaru minnam moom sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi moo dend ak kër sëriñ abdullahi jaxate foofu la amoon këram nekkoon fa foofu léppam na jébbal magam cheikh mamadul moustapha mbàkke ndax kan moom lay xoole xaadim rasuul ginnaaw bu mu ñëwee tuubaa nag ci quartier bi di daarul minnam ci wetu magam ja cheikh mamadul bachir mbàkke kii di sëriñ abdullahi mbakke borom dër bi nag wéel na am njàngam ci sëriñ habibu mbàkke imaam ngir gën a giiju nag ci grammaire arab ndax sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi nag ku bëggoon am njàng ba ci mois de novembre ci atum 1929 ci mois de novembre ci atum 1929 nag la ànd juróomi kilomètre ginnaaw Touba mu sanc nag fii ñu tuddee Daaru Rahman Daaru Rahman nag bokk na ci tur yi ñu koy woowee ndax kat ci ci yéen la feeñee jamono ci atum 1907 ci ci yéen googu nag waa juróom xaadim rasul amoon na fa ñaari kees ci kër ga mu fa nekkoon genn gi mu tuddee ko Daarul Quddus gi site sitim mu tuddee ko Daaru Rahman Daaru Rahman googu nag la fay dëkkam bii mu tuddee Daaru Rahman ndax kat ci la feeñee jamono ci atum 1907 te waajuram amoon na fa kees gu tudd daaru raxmaan ginnaaw bu mu sancee nag dëkk boobu di daaru raxmaan ci mois de novembre ci atum 1929 damoon na seeti nag jàmbaari ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di sëriñ mbàkke buso mu boole ko kenn ci boroom xam-xam yi nekk foofu ci moom ngiriti mu mën koo wétti li ci dëkk boobu di daaru raxmaan ci la ko kii di sëriñ mbàkke buso boole ko ku ñuy wax sëriñ cheikh faati kandi buso sëriñ mbàkke buso sax keroog mi ngi wax sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ cheikh faati kandi buso mii kawar dong nag lañ ko ëppalee waaye xam-xam moom macha allah sëriñ cheikh fatikandi buso moomu nag nekkoon nag ki di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ci dëkk boobu di daaru raxmaan yoroon na fa itam daara ci dëkk boobu di daaru raxmaan ba tax na sax am na ñu wax ne sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itam daana jàngaate ci moom waaye daal li wér te wér mooy daara jooju mu fa yoroon mbooloo mi sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi yoroon di leen tarbiya moom moomu moo leen doon jàngal lii di xam-xam ak alxuraanul karim foofu ci daaru raxmaan sëriñ cheikh fatikandi buso moom Abdoulahi Mbacke borom dër bi te sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi joxoon ko daara ja moom moomu du sëriñ Cheikh Faati Kandi Bousso def na ay way nag ci sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi soo delloo ci way yim def nag ci sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi mag ñuy wax jikkoy sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ak melokaanu sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi wayu yaatu daal la sëriñ Cheikh Faati Kandi Bousso jagleel doomu Cheikhul Xadim boobu ci taqoogum taqoo woon ak sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ñu teewlu ko inna abdal azizi fi rawdati jannatun ay naat يلحق بماء فرات جوده كالوطفى ووجه حبيبي دونه زهرة من النيرات قلبه واليدان روض وريق فحصام فديمة للعفاة عند دار الرحمن دار مقام دار عبد العزيز سلفيدات تلك دار قطوفها قد تدانت وهي دار الخيور والبركات حبس عبد الله كان بناها بالتقى والهدى عن الترهات ساكنوها في خط شقة وحبور فانتياب الكباب والثمرات فكؤوس ملأ بصرف أتايا بأباريق بن سمتوسات وندام عبد العزيز شراف فيدير الكؤوس والتاسات نحو جيفال نحو فك حشاء في بل المود مدرة المكرمات عندنا ما تهواه نفس اللذيذة وما قد تلز عين الآتي من يزر دارنا بقلب سليم يرجع بالمنى وبالطيبات فسلام salaamun alayka fi xayri daarin ma tanazzahta fii tihi rawdaati way yooyu nag la sëriñ Cheikh Faty Kandi Bousso defoon nag ci sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi mu wéy nag nekk daaru raxmaan di bay di liggéey di tarbiya mbooloo mi ko topp ngir ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ay at nag la def nag ci dëkk boobu di daaru raxmaan taxawal nag liñ tuddee ay siyaan ndax kat boobu kat ci daaru raxmaan googu sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi gasoon na fa lu tolloog ñetti siyaan siyaan ci xelam ak nuru gum nuru seexul xaddim ndax kat soo demee ci xarnu bi bi seex musaa ka di wax melokaanu cheikh abdullahi mbàkke borom dër bi ma ngay wax ne itam ku nangu woon a liggéey la ku xarañoon la ngir nurugum nuru xaadim rasuul ci liggéey loola itam taxoon na ñetti siyaan yooyu sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi xëttale leen ba ñetti siyaan yi xëttaloo ñetti siyaan yooyu nag bi mu leen xëttalee kii di sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi nag taxawaloon na fa lu ñu tudde ab dër muy toolub jardin toolu jardin boobu sax tax na tur wii ñu koy wooye muy sëriñ abdullahi tolloon dër boobu itam ci xalaatu sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi demoon na ba daanañ togge ab ceebu jën ci dëkk boobu di daaru raxmaan lu dul xorom dëkk boobu lay jóge ndax sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ginnaaw bu mu xëttalee ñett siyaan yi yónni woon na ay nit ci dëkk bi di ndar géej ñu dem nappal ko ay jën ñu indi woon ko itam ci siyaan yi bàyyi leen fa jën yooyu itam daanañ jur ci biir siyaan yi ba tax na ab ceebu jën daanañ ko togge ci dëkk boobu di daaru raxmaan lu dul xorom fa lay ñore dër boobu mu taxawaloon ci daaru raxmaan lépp luy meññee fitim daanañ ko baye ci dëkk boobu boobu di daaru raxmaan loolu itam taxoon na autorité coloniale yi fi newoon muy ministre de l'agriculture de l'Afrique occidentale française déplacé woon na France ba ci dëkk bii nag di daaru raxmaan ngir seet si sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi ngir yéem gu ko sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi yéem ci pexe mi mu def ba daanaka yor lu luñ mën a wax ak dex mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu di daaru raxmaan di liggéey laataa daaru raxmaan itam nag kii di sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi nekkoon na itam ci tiib goog Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ba amoon daana fa bay ci wetu dëkk bi itam di Touba Bogo goog Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke kii di sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi itam amoon na fa suuf itam ba daana fa baye ci dëkk bi itam di Ndulo itam amoon na fa suuf ba daana fa baye mujj gi daal li ëppoon ak ñekkinam ci dunduk sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi muy diggante Mbàkke Bawal ak dëkkam boobu nag di Daaru Raxmaan mu wéy nag yor ab dërëm ci dëkk boobu di Daaru Raxmaan di liggéey di yar di jàngale ak di tarbiya nekk nag doomu ko baax ki sëriñ tax na itam ñu baree bare bari bàyyi woon nañ xel jëmm jooju di sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi bari na itam ci seex si ñu ko joxoon seenu njaboot bari na itam ci doomu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yu ko tudde itam lii di doom ba tax na sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi itam bari na ay turandoo lool ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëñ abdullahi borom dër bi itam nekkoon na ko xam ne itam tur yu bare bare bare bari lañ koy woowe ndax ay turandoom dañoo wuutee ay tur yuñ leen di woowe waaye yépp rek abdullahi borom dër bi lañ leen faye ñu mën a ràññee ci turandoo yooyu kii di magam cheikh mamadul faadal mbàkke tudde woon na ko doom ndax sëriñ abdourahman mbàkke bu cheikh mamadul faadal mbàkke mi ngi fi woon nëga ni daaw wala daaw jéew rek la ñu dëddu mu féete woon itam ci dëkk bii di ndakaaru njaay cheikh mohamadul bachir mbàkke nekkoon itam magam nekkoon xaritam itam tudde woon na kii di sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi doom ndax sëriñ abdul akim mbàkke bu cheikh mamadul bachir mi ngi fi woon te sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi la ko tudde cheikh mohamadou lamin baara mbàkke nekkoon magam itam tudde na sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi doom ndax sëriñ abdu kumba suuna mbàkke bu cheikh mamadou lamin baara mbàkke mi ngi fi te sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi la ko tudde sëriñ abdu kumba suuna moom sax ñu ngi koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram ndax jortu naa ne ci turandooy sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi jamono ji moo ci mag sëriñ soin bu mbàkke di rakkam tudde na itam doom kii di sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi ndax sëriñ abdourahman mbàkke bu sëriñ soin bu mbàkke mi ngi fi woon naga ni daaw sax la génn nag lii di àdduna cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim itam tudde woon na doom itam kii di sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi ndax sëriñ abdu gasaan mbàkke bu cheikh murtada mbàkke mi ngi fi ñu gënoon koo xam ci sëriñ abdul aziz murtada naga ni daaw itam la génn àdduna sëriñ abdullahi borom dër bi la ko cheikh murtada mbàkke tudde woon lii di cheikh yi itam ñu ci baree bari tudde nañ ko doom doomu maam moor jaar bii ñuy wax sëriñ moor soxna tudde na ko doom ndax sëriñ abdullahi mbàkke yàllaay buur mi ngi fii sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi lañ ko tudde sëriñ abdullahi mbàkke yàllaay buur mi sax moo toog toogaayu maam moor jaara sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma di doomam tudde na sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi doom ndax sëriñ abdu xaar mi ngi fi di sëriñ abdourahmaan mbàkke bu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi lañ ko tudde kii di sëriñ moor mbay siise bu njaareem tudd na sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itim doom sëriñ moo xari ñang bu kër ñangitim duppee na doom kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ ñaan jóob bokk ci jàmbaar yi toppoon cheikh mamadou lamin baara mbàkke itim tudd na sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi doom ndax sëriñ abdullahi jóob bu sëriñ ñaan jóob mi ngi fii sëriñ ñaan jóob moom sax wóllëréew sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi la woon ba tax na bi mu génnee àdduna cheikh mamadul mustapha mbàkke mi wóotu woon xaadim rasul xamoon na seen diggante moo sàkku ci sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itim mu taxawu sëriñ sëriñ ñaan jóob ngiru kóllëre sëriñ moodu awa balla mbàkke bu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaritum tudde na sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi doom sëriñ abdul mbàkke mi ngi fi sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi la ko tudde sëriñ moodu assu bu sëriñ moor soxna bu maam moor jaara tudde na kii di sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi doom sëriñ maxtaar mbay kayre tudde na sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi doom ndax sëriñ abdullahi mbay sëriñ abdullahi mbàkke abdoulahi mbàkke boroom dër bi doom xam naa ko bëgg lim kuñ tudde sëriñ abdoulahi mbàkke boroom dër bi daa juum loolu itam tax na ay turandoom wuute lool ay tur yuñ leen di woowe ndax ki ko cheikh mamadul bachir mbàkke tudde sëriñ abdul akim lañ koy wax ki ko cheikh murtada mbàkke tudde sëriñ abdul aziz lañ koy wax ki ko sëriñ moor soxna tudde sëriñ abdoulahi lañ koy wax ki ko sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma tudde ak cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ abdourahman mbàkke lañ leen di wax lii di ay turandoom moom bari na ay tur yu bare bari yuñ leen di wooye yu wuute waaye lépp nag boroom dër bi rek lañ leen faye njabooruk sëriñ tubaa seexul xaddim gu jigéen gi itim kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itim ñu ci baree baree bari tudde na leen doom ñu man cee ràññee soxna maymunatu mbàkke soxna muslimatu mbàkke ak ñeneen ak ñeneen kii di soxna muslimatu mbàkke moom wóol la réew sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi la woon ba tax na na lool ci njabootuk sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ñi bokk ak waajuram waajur di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru cheikh ma sàmba mbàkke sëriñ aafiya ñeneen ak ñeneen ñii ñépp nag waajur lañu woon ci sëñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi waaye tim ay kóllëreem lañu woon ba ci maam Cheikh Anta Mbàkke boroom dërëm ak ngërëm maam Cheikh Anta Mbàkke moom wóllëréew sëñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi la woon ba tax na doomam ji ñuy wax soxna Daba Mbàkke bintu maam Cheikh Anta Mbàkke sëñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi dëkkoo woon na ko ba tax na am nañu njaboot maam Moor Jaara magi mag la ëpp ci njabootam wóllëréew sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi lañu woon ba tax na soo demee ci njabootu maam Moor Jaara sëñ Abdoulahi Mbàkke yi bari nañ fa bi lañ leen faye kii di sëriñ Mor Kayre bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddiim foboon na ab taawam bu mu faye woon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di ku ñuy wax sëriñ Cheikh Ahmadu Kayre jébbaloon ko sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom bi ngir mu yor ko sëriñ Cheikh Ahmadu Kayre moomu sax ci loxo loxoy sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom bi la génne àdduna loola itam taxoon na waajuram wow di sëriñ Mor Kayre doon ko jaale kim ko jébbaloon di sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom derby ginnaaw bu sëriñ Cheikh Ahmadu Kayre moom génnee àdduna nekkoon taawub sëriñ Mor Kayre sëriñ Mor Kayre itam doon na ko jaal na kii di sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi doon ko dëfalaale ndax ma ngi koy wax ne kat kii di sëriñ Cheikh Ahmadou Kayre moomu nekkoon sama taaw ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim rek moom moo taxoon ma jëloon ko jébbal la ko ba tax na génn àdduna googu mu génne àdduna nag ci dëkk boobu di Daaru Raxmaan ci say loxo du sa coobare du dara waaye daal na nga xam ne Seexul Xaddiim dong na moo taxoon ma jébbal la ko sëriñ Mor Kayre nag ma ngay wax sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi di ko jéggal nekk nag bu fekkee ne du àjjana dugalal ma ko àjjana waaye man mii di waajuram bis bu ma ko fekkee sama doom jooju itim nga tàbbal ma itim lii di àjjana ñu teewlu way yi sëriñ Mor Kayre defoon doon jaale waale sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi doomam jooju mu ko joxoon di sëriñ Ahmadu Kayre ginnaaw bu mu génnee àdduna ci loxoy sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi mu di ko jaal di ko dël di ko wax ni sama doom jooju sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim dong nag moo taxoon ma jox la ko waaye tey laa la gën a naw tey laa la gën a weg yow sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër kër gi ñu teewlu way yi ci sëriñ Mor Kayre defoon ci wàllu wolof yaa seyxu Abdul Asiis boof naa fi yow ni mu xu yeesal soor may jëkkoon xol du sañ cu moom du la suufeel mukk fam la tegan daa géej jutul rent ji wax wuute na ak saxu ma lay jox sama taaw gëm gi raw na tey mandal ma maag seex ci say def karfatil ci loxo te leer yi la war ak cheikh tàngal nu ci tuut kon cheikh te xëy man ma seexaat fatte waa xubixu toxol ko njeem dafa dal ci kër gu mbég bariwul kël ko firdaw si suukar lem la peey ba de xoo ya abdu mbakke dama yërbët bi kar fatiwul tamkem ci ndimbali baatin maa koy saraxu yow am nga baatin bu fatte kay remi bu deme ba guy xe naani sal sabil ne kuy semaxu baatin bi may wax ci yow muy loo ma sa wax ñu gis ko kuy tegtaloo say wax du muy tañaxu an xaw ma baatin damay xool tegtaloo li ma ci kaw ma xam nu li feeñ mooy tegtalub lu làqu xad xiila yorafu shay um baatinin ci lu feeñ yemoog la baatinu xaw su niit wa yaa ko saxoo ñu naa di fàttali yooye orma mus la woyof sottil ci xol bi du gën wurus u fee fi yoxo ku réere yi xorma ngeem yow réere woo ko mu doy sopp wàlli yu nee ko gi cofeel du tax way yooyu la sëriñ Mor Kayre defoon ngir di jaale sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi ci doom jooju mu ko joxoon di sëriñ Ahmadu Kayre noonu ko sëriñ Mor Kayre nag dafee ci wolof ni la jaalee waate itam kii di sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi ci kàllaam ak arab ñu teewlu way yim ko defaloon itam ci arab يا شيخ عبد العزيز قد أتيت لك مذكرا حرمتي لكم وحرمتك اعلم بأني لم أنقض لطول فراق بيننا العاد قد جددت تلك لك ولم أسل بعد بعدي منك أذكركم لطول حب يداككم ومنزلك يا شيخ لا تنس كيريا وعذبك بعد اليوم دنيا وأخرى وهو عاشقك قد جعل في جملة السادة السادات والكرماء فكري ولم ير منهم من يماثلك ظننت أن مقامات الرجال إذا قيست ليقصر كل دون مقعدك أظن ظن يقين طول فكري في الأمور فني على السباق فضلك في الفكر علم يرى بلا تعلمه علما نفيسا بذاك الله أورثك كذاك تقوى إله الناس كان يريهم من الله تقوى الله علمك كذاك ابن خيار الأولياء يرى علم الحقيقة كل ذي مناقبك وليس كل هداة نيل منسلكم خصصت جملة هذه من وراستك wa yooyu ngeen dégg nag la ko sëriñ Mor Kayre defaloon ginnaaw bu mu ko jébbalee taawam ba di sëriñ Ahmadou Kayre sëriñ Ahmadou Kayre moom nag génne àdduna ci loxoy sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ moor kayre nag doon jaal sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi doomam jooju ci kàllaamay olof ak arab loolu moo nekkoon way ya sëriñ moor kayre nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim la bokkoon te bokkoon na itam ci bindkat yu mag yi mu wéy nag nekk ci dëkk boobu mu gor di daaru raxmaan moom sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi dër boobu mu yoroon nag ci daaru raxmaan laataa mu fi bàyyikoo nag dër bi mujj na fi bàyyikoo ci coobarey sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ci 1965 la sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi wax ne seetlu na ne daal dafa bëgg a bàyyi nag lii di dër bi ci at mii di atu 1956 ca mois de janvier ba tawub ëgg nag amoon na bu méttee métti ci noorub boobu ci la sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi nag jaaraale suulaale nag lii di dër ba ci tawu ëgg boobu nag la sëriñ Abdoulahi Mbàkke santaane dëkk yi wëroon daaru raxmaan muy kayre mbay kànka mbàkke bawal ak dëkk bii nag di kër kàbbu ñu fab ngooñ mu xuur ma ak mboom ma suule 56 boobu sëñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nag pataas la fa mujjee bay pataas boobu nag moo nangu woon ba yéem ñu baree bari ci 1957 ñu fa dara ndax suul nañ dër ba ci 1958 itam ñu fa dara ndax suul nañ dër ba ci 1959 itam ñu fa dara ndax suul nañ dër ba ci atu 1960 nag la génn àdduna ca fukki fan yaak juróom ci mois de janvier ba kon laata sëñ Abdoulahi Mbàkke di génn àdduna dër ba jóge na fa ci coobarey sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi dër boobu itam ca la yore daanañ ko jaay siitim ci dëkk bii di mbàkke bawal mbàkke bawal googu itam sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itam amoon na fi lu tollu juróom-ñaari kër ci biir juróom-ñaari kër yooyu moo amoon ci mbàkke bawal lenn ci njabootam fa lañ féete ku bëggoon dëkk bii nag di mbàkke bawal la ba tax na néew na lool sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër xëy ba ngoon te ñëwul nag ci dëkk bii di mbàkke bawal kon ku fonkoon mbàkke bawal la ba tax na itam juróom-ñaari kër am na ko sax ci dëkk bii di mbàkke bawal dëkk bu sell bii itam di tuubaa sëriñ abdullahi mbàkke amaatoon na fi yeneen kër waaye këruk daaru min gànnam gi moo nekkoon kër gu gënoon a siiw ci këram yi kër gii nag wuuf jumaay tuubaa ji di kër sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ginnaawam nag la ko moom ndax bi ñuy natt dëkk bi ci atum 1960 le cheikh mamadul faadal mbàkke waxoon sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ko xamal ne na fexe daal ba mook sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nañ taqaloo ak kër ndax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mas na leen a wax ne cheikh mamadul faadal mbàkke yaag abdullahi mii kat yéenay dëkk ca àjjana loolee nag la cheikh mamadul faadal mbàkke doon fàttali sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di ko wax ne kon nag nañ tàmbali yëf yi ci àdduna bii fexeel booy natt kër yi maag sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ñu dend kër gi sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi xamu ko waaye ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag lañ natt dëkk bi ci mois de janvier 1960 la fi bàyyikoo te ci mois de avril 1960 lañ natt dëkk bi ginnaaw bi nag lañ jébbal kër gi sëñ Cheikh Daaru Rahman kon lii moo waral kër sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi wuuf jumaa ji mu nekk nag ku bëgg xaadim rasool moom sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ku ki rakkam ngir nag xaadim rasuul seen waajur ba tax na itim nag saa su ne daana ziyaare si barabu waajuram wi xaadim rasuul ba am na benn bi sax mu ñëwoon nag doon ziyaare si barabub xaadim rasuul bi booba nag sëriñ Xamsatu Jaxate mi ngi ci këram gii nag wuuf jumaa ji ginnaaw bu sëriñ Abdullahi Mbàkke wàccee nag ci oto bi nag jubali nag barabu xaadim rasuul bi booba nag kër sëriñ Xamsatu Jaxate ak jumaa ji nag dara nekku fi bu sëriñ Xamsatu Jaxate nag toogee këram ku nekk ci jumaa ji nag dana la gis ginnaaw bu mu laajee kële wàcc ci oto bi nag jëm ci barab bi nag kan wax ne Abdoulahi Mbàkke la moom xaadim rasuul sëriñ Hamsatu Jaxate nag di xamal ñim toogaloon di leen wax ne jamono jii de ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul nag nekkul nag ci barab bi sëriñ Abdoulahi Mbàkke ma la jëm fa bu fa yàggee ma xam ne nag xamul dara nag ci waajuram ndax jamono ji waajuram nekku fa bisub kero sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi daa dugg rek ci barab bi génnaat lii nag sëriñ Hamsatu Jaxate nag wax na ko bis boo xam ne ni sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nag da doon ziyaare si nag barabu waajuram wa mu wéy nag des nag ci dëkk boobu mu gor nag di daaru raxmaan 1960 moom doomu xaadim rasool bi mi ngi génn àdduna ci dëkk boobu mu sañtoon di daaru raxmaan ci feebar bu ko tëral ci diirum ñaar fukki fan ay atam toll ci juróom fukki at ak ñett bi muy génn àdduna ci dëkk boobu mu goroon di daaru raxmaan bisub alxemes la tombeel ci guddi ba set di ajjuma alxamis jooju ci guddi heure ba mënoon nañ koo xayma ci minuit jàpp une heure du matin sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi mi ngi génn àdduna guddik alxamis jàpp fajarug a fukki fan ak juróom weeru rajab ci atum 1379 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weer wi di weeru rajab ci atum 1379 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 15 janvier 1960 vendredi 15 janvier 1960 ginnaaw bu sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi génnee àdduna lañ ko yëgal na ki toogoon toogaayu xaadim rasul nekkoon magam di cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke nag moo woolu magu sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi nekkoon itam xaritam di cheikh mamadul bachir mbàkke cheikh mamadul bachir moo taxawu sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi sooy dugg ci armeer yu mag yi ci sa loxo ndeyjoor foofu la sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nekk ci bëccëgoog ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weer wi di weeru rajab ay xalifaam nag nii la tëddee moom sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ cheikh daaru rahman di kim faye xaadim rasul di waajuram moo ko wuutu ci atum 1960 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ bakkanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ndax saglakat ci daaru raxmaan ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem nag ñun séqal sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi moo xam doom sët ak turandoo ba ci taalibéy sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nag am na bis buñ koy fàttaliku muy li ñu tudde ak màggal ndax bëccëgug alxemes di fukki fan ak juróom ci weeru rajab lañ mujjee gis jàmbaar jooju di sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi bëccëgug alxemes googu ñu ko mujjee gis la ak njabootam jàpp nag di fàttaliku sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi muy fukki fan ak juróom ci weeru rajab ndax ci guddik alxamis googu ca fajar ga di ajjuma ja lañ ko ñàkk màggal gi nag ñu ngi koy màggale ci dëkk boobu mu goroon di daaru raxmaan ñuy ñaan ci doomu seexul xaddiim ba te nuroo woon ak seexul xaddiim dañ doon wooye boroom dër bi yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te wanale koog waajuróom wa xaadim rasul lii di jafe-jafe réew mi itam na ko suñ boroom saafara ci darajey abdullahi amin abdullahi